mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii ci euh, deni Biram ndaw complexe sportif bi nga xam ne euh, fii la équipe bu génération foot euh, di entraîné école de football bi nga xam ne Madi Touré moo ko créé en 2000 fii la nekk cadre bi nak li ñu fi indi tey mooy assister jongante bi nga xam ne moo war a dox sélection UNFPA union des footballeurs professionnels et amateurs bi nga xam ne tey ñoo war a jongante équipe génération foot bis bi waaye li ñu soxal mooy lan mooy sélection UNFPA du yàgg nag ñu daal di laaj kii di Cheikh Omar Aidara euh, mu indil ñu ci ay leral Cheikh Omar ginaaw nuyo bi euh, sélection UNFPA yi ñu ko ton euh, firil diko tekkil mbokk internet yi moy lan. waaw bon ma ngi nuyu ñep d'abord di nuyu wa Génération Foot plus particulièrement coach Ablaye Sar bi nga xamni moma invité d'ailleurs daw invité na ma fi ben match. Et comme on n'a pas été ridicule comme nim koy waxé <laughs> donc mu invité waat ma ren quoi pour ñu jouer ak ñom maintenant pour revenir carrément sur le concept donc euh, c'est le groupe sur la Ligue 1. Hein, nous avons une initiative avec euh, Laïteri qui est à la tête de tout ça. Laïteri donc qui est absent de Dakar, mais Donc c'est lui qui a initié véritablement cette sélection. parlé de Maintenant, la sélection en tant que telle, c'est une sélection qui regroupe des joueurs qui ont joué le championnat, Nous ont joué le championnat, Ligue 1 ou Ligue 2 ou National. Nous avons fait un maillage national de récupérer joueurs yëpp ci gox yeeg gox goxaat parce qu'on fait une sélection à la à la base au préalable su ko defee sélection bob au moins dañu am groupe 30 joueurs bo xam day varier en fonction des allers et retours. projet bu noble la parce que objectif mo nekkoon joueurs yi en fin de contrat ak joueurs yi amul club ñu créer sélection bi pour mu club quoi mu jox opportunité pour ñu mëna am club c'est ça l'objectif vraiment gis nañu initiative bu noble la ndax joueurs yu bëri jaar nañ fi. ñi nañ club bon ñuy voyagé nañ quoi. Euh, laajteer yi moom moom moom moom moom woo ne ma dañu am benn projet pour joueur nekk en fin contrat ak joueur yi bëgg club yaa ngi dégg après si laa ñuy intégré sélection mais depuis ma ko intégré ba léegi aw ma ci déception quoi parce que ñu ngi dem di jouer équipe Ligue 1 yi xam nga dina la may ouverture dina la may aussi opportunité pour yeneen. club bi gis la quoi. fi mom poste yëpp la ñuy jël fii ba Ziguinchor dañ fay jëlee jour donc ñun luñu soxla rek moy ñu ñu présenter ñu benn jour nañu xol len ko ñu xol ko ci test d'abord si les opérationnel ñu daal di ko indi sélection bi woné bopam boppam soo wonee tamit mën na am chance donc euh, jouer ci championnat du Sénégal fi Oui là mën na am chance tamit pour aller jouer à l'étranger. parce que à l'heure où je vous parle on a déjà deux joueurs qui sont partis en France daaw son milieu offensif moom il est parti en France de même que sama attaquant de pointe bi te ñëpp ci sélection bi la ñu au-delà de ça aussi on a des joueurs qui viennent d'arriver fraîchement Nous nga xam une dañ ils saytu capacité indi sélection donc looloo waral match bi en cours. Je suis un sax président de l'équipe. de affaire suis def test affaire Je si la de am je suis mu Je baax affaire je am si la ma intégré de quoi ainsi mom élève là tamit damay jàng quoi euh, terminal laay def yaa ko xam mais ma ngi fubal yenn fubal yi temps yii passé defoon ay test feneen te nga essayé une semaine mais moy lool quoi mujjul bax quoi moo tax. milieu offensif la jouer damay jouer 8 damay jouer 6 damay jouer 10 damay joué aussi excentré. pratiquement amaguñ match yu bari pratiquement amaguñ match yu bari parce que amna ñu jot jouer mais déjà Kalena naa Stade Mbour déjà war naa joué moom xam semaine prochaine amna Oslo bu tok di xaar amna ñaari talim mu ñuy xaar donc douane war nañ jouer ak mom soo fa jógee tey euh, mbur Petite Côte war nañ ko am même jàmbaar sànq ñu ngi leen di contacter aussi war nañ nam donc finalement ñun on est ouvert à tous les clubs. ñu avons am satisfaction petit à petit même si c'est pas facile parce que ñun avons investir suñuy moyen bopp <laughs> muy man ak laay teel peut-être euh, am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci groupe la Ligue 1 bi. justement est-ce que est-ce que day am euh, cotisation yi ñuy joxe wala somme boo xam ne da ngeen koy demander joueurs yi pour adhésion comment ça se passe wala juste bénévolat là. waaw bénévolat là, hein, ah <laughs> bénévolat ñun moom presque comme ni wax rek ñun avons jël suñu moyen di ci def parce que pratiquement en termes de transport euh, soyez on su ñuy dañuy gens qui 500 ou 1000 francs après le reste on complète C'est comme ça qu'on fait pour Diapolène. Euh, parce que si on n'a ils n'ont pas cette hauteur financière bu ne war pas permettre ñu dépenses touche financière importante pour accompagner mais le c'est dans le cadre véritablement de renforcer de servir de grenier pour le football sénégalais en général et le football international